Thank you. amee site internet daleen ak jàmm seen chaîne préférée ak ci seen TV ak kii di Ayib Daffé mandataire leader bu Pastef di Ousmane Sonko niki tey jilee daal di woon a delluwaat foofee ca DGE ci naka noonee bëggoon a demaale foofee ca direction de l'automatisation des fichiers di DAF man loon si ak huissier de justice ak kenn ci avocat njiitalu Pastef yi di maître Ciré Clédor Ly tey jilee vers 14 heures gannaaw bi nga xamante ni waa DGE daal di foofee ca tribunal instance bu Ndakaaru ba taxoon rek ñu daal di woon faa dellu ni ki tey jilee doon wute di foofee ca daafa ngir nag ñu daal di réintégré waat di foofee ca DGE ngir nag kii di directeur général des élections di Thiendella Fall mu daal di koy jox lii di fiche de parrainage waaye nag moom mi kenn koo xamante ni rek daal dina koy recevoir ba tax nag moom di ay yëpp daafee mu ngay xam ne rek fekk loolee dafa nekk benn dilatoire ba loolee waral ñoom ñi le ñu bañ leen a recevoir gannaaw nag notification de l'ordonnance bi nga xamante ni dañ lay tukkee ca tribunal instance bu Ndakaaru taxoon na kii di Ciré Clédor Ly dafa bëggoon a mu dugg ci biir direction générale des élections waaye nag ñu gis ne policiers yi nga xam ne ñoo taxawoon foofee ca buntu DGE dañ doon malmené kii di Ciré Clédor Ly ñu ko doon téye ñu bañoon mu xamante ni dañ lay am fii ci réew ni rek ñu ngi koy tekki seen nag ko wax ci naka ni mooy mandataire Ousmane Sonko dañ lay xamle ni nag loolee lépp ki ne mooy ministre de l'intérieur di Sidiki Kaba moo ko waral ndax nag moo déployé ab dispositif sécuritaire ay éléments du commissariat de la Médina waaye tamit ay gémi juste pour ñu empêcher leen ñu gisanteeg waa DGE ak waa DAF nekk nag lu doy waar loo xamante ni rek jamono jilee dañ nañ ko fi nemmeeku gannaaw décision bi nga xamante ni dañ lay tukkee ci tribunal instant sasu busu ken sor ci nak non tamit ci tribunal or classe bu dakaru way nak depuis bob ak legui rek ñu gi daldi gis mom ay yepp da fe nek mandataire ousmane sonko ma ngi dem fofé ci dg way nak mëna guta jot ben fiche de parrainage jëm nak ci candidature ousmane sonko ci élection présidentielle atuma 2024 yi le